mais dialogue bi lu ñu ci mën a espérer monsieur le ministre. man d'abord que les gens se parce que président ñoom la ñuy wax nee nañ président nee na dëkk bi dara xew fii ça va les institutions. fonctionnent non président li wax mais les institutions fonctionnent. maanaam soxla soxla dialogue en fait ça non président li waxul. ñoom noonu comprendre rek dafa ne bu fekkee am question bi ne gouvernement après duñ ko élargir mu leen. Mm-hmm. loolu nekkul à l'ordre du jour parce que institution yaa ngi fonctionné euh, loolu moo am justice baa ngi dox. gouvernement baa ngi gouvernement gouvernement yow sa kër sax mën nañ ci wax <laughs> ban lan lañ mënul wax ci àddina nañ ma wax rek mhm. lan lañ mënul wax ci àddina tubaab bi ñu jël exemple ñu jël exemple tey te ñoom ñoo doon wax ni France dégage ñu jël exemple seen tubaab bi seen tubaab bi la ñu jël exemple dañu xool li xew ci seen réew yi ci waxtu yi ñu nekk donc àdduna moo demee noonu mhm. mais adduna ak loo mënta am position waxtaan kenn mënu koo dindi man damay jàpp tous les jours man damay jox sama exemple man je suis dans un dialogue permanent damay gëm ni réew mi ñoo ko bokk. Mhm. man bi ma gagné Kaffrine damay jox sama exemple bopp bi ma jëlee gagné Kaffrine parce que man je suis élu au suffrage universel. waa Kaffrine ñoo ñëw am ci man confiance am ci man yaakaar dénk. bi ñu ma dénkee il y a eu pour cent yi ma wooteelul. 71 mhm. pour cent la am. am nga 71 pour cent nag c'est un plébiscite. Mhm. en matière de démocratie. waaw ah, mais dama jàpp ni dama ñëw ma ne benn poste ci cinq adjoints yi nañ ko jox opposition. loolu. c'est parce que man je suis un produit un produit de la démocratie un produit de la contradiction ragaluma contradiction ragaluma man nëbbuma daal mhm. kon bu ñu ñëwee noonu ci yeneen adjoint yi ñu jël ko nga xam ni deful politique boo xoolee APR bi bi force majoritaire deux la ci am sur cinq parti socialiste am benn mhm. te am na lu ngeen fi déggoo parti socialiste am fi benn kon ñu ñu man j'ai été toujours un homme d'équilibre un homme de discussion un homme mais mais en respectant mes convictions et mes principes doo ñëw ne ñuy discuter nga ne yow li nga wax rek ku waxul loolu nga saaga ko ku wax loolu nga menacé ko. mais aussi ki ngay woo waxtaan ñëpp ñoo nekk ci kaso sénégalais yu nekk ci kaso bi ak ñoo bëri njabootu ñëpp yow say say mbokk am na say mbokk ak say yu nekk kaso sauf que sauf que nee euh, mais c'est la première fois aussi c'est la première fois utilise comme voie de conquête du pouvoir l'injure ak la menace ak la calomnie. mais woote dialogue est-ce que jaadul nga am noo noo doxalee tuuti. mais mais lan la ñuy doxalee ci ci emprisonnement yi par exemple. est-ce que woote dialogue là là là au moins on parle numéro 2 de Pastef est en prison. est-ce que woote dialogue Bassirou Diomaye Faye est-ce que woote dialogue maa ngi koy naqarlu. Mhm. maa ngi koy naqarlu c'est-à-dire man su doon suma sago benn doomu Sénégal du nekk prison su doon suma sago mais ci adduna tamit lañ nekk ci réew aussi lañ nekk est-ce que dañu war a jël charte réew mi ñu def ko entre parenthèses parce que ñu ko tànn ci mbirum politique est-ce que ça veut dire que homme politique yi lu leen neex ñu def si seen terrain alors que jaaykat yi yu nekk ci marché amuñ droit loolu ou bien am marchand ambulant yi ñoom tamit amuñ droit boobu politiciens yi ñoo nekk ci kaw marchand amilan yi ñoo nekk ci kaw gouverneurs yi ñoo nekk ci kaw ñëpp lu leen neex ñu def mais doon naa d' ak yow bu fekkoon ne euh, thème de référence yi li président Sall keroog wax am na koo xam ne amnistie la soxla am na koo xam ne révision procès la soxla maanaam yooyu aussi. Euh, non c' est c' est maanaam voilà justice ngeen ñu def def ngeen laa ñu xëy def table mais amnistie amnistie ak ak ak ak loi ñoo ànd c'est-à-dire yoonu loi amnistie daf bokk du lu ne président Macky Sall la ko inventé réew yëpp dafay am moment bu nga xam ni pour se réconcilier dañu ne nañ baalante l'histoire la du ma la defal l'histoire de la loi d'amnistie ma mhm. la ko defal et donc ce n'est pas une chose inventée bu nekk lu bees au Sénégal da fekk à un moment benn moment un peuple décidera ne ah nañ waxtaan ñu xool naka la ñuy effacer loolu am na ci Mamadou Dia am na même ci Ablaye Wade am na même ci Ablaye Wade Ablaye mu ngi koy fàttali benn jour ñu kon ñu ñu daanee ko euh, tribunal mercredi vendredi parcelle convoqué assemblée nationale pour voter une loi d'amnistie qui permet de recouvrer ses droits ça peut arriver dans des discussions politiques ça peut arriver dans un monde où mais même Ablaye Wade l'a fait mais certains trouvent que c'est dommage parce que ñu ngi wax sax tey la ten 30 ans anniversaire assassinat Maître Babacar Seye sa famille dañoo mujj bàyyi lépp ci loxo yàlla parce que amuñ ci leen xamoon nañu bon jàppoon nañ nañ ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo exécuté commanditaire ci ci affaire médecin ñan la woon wuy ci affaire médecin kay ñoom Clédor ñi ñoo ci nekkoon. non waa ñi tiire en fait les ah, bras armés mais ñooñu commanditaire xam nañ ñu nekkoon derrière ba boobu moom suivre na étape xam nga man lu ñuy wax la force de la chose jugée bu ñu ko mhm. defee ba pare jeex na ba pare président de la république am na ñaari mbir gracier ou bien dem assemblée nationale dafa projet de loi bu amnistie Abdoulaye a choisi mhm. lui de faire la loi d'amnistie en son temps les gens ont apprécié mais mhm. man j'estime que un peuple aussi même si même si affaire ko toujours mu am loolu naqari je partage avec la famille de Me Seye cette douleur parce que douleur personne ne peut l'effacer ça va toucher des générations et des mais il a un moment où un peuple dafay dafay nopp ci yooyu voilà jéggale ci yooyu xam ni métti na parce que Maître Babacar Seye ce n'était Maître Babacar Seye était une personnalité marquante mhm. de la région de Saint-Louis et du Sénégal dans le football aussi de, ah parlant du sport il a marqué et c'est pourquoi d'ailleurs le stade de, de Saint-Louis porte mhm. son nom donc c'est une perte incroyable bu nga xam ne va suivre toute l'histoire du Sénégal mais mënuñ nag continuer tous les jours à vivre que de ça Maître Babacar Seye n'aurait pas aimé que tous les jours qu'on ne parle encore que de lui à travers l'assassinat tragique même pour la mémoire de Maître Babacar Seye aujourd'hui le peuple sénégalais doit travailler sur d'autres paradigmes pour honorer sa mémoire. loolu jii pour amnistie bi ñuy wax euh, parce que on n'amnistie pas des personnes on ne cesse de nous rappeler. de nous le mais bii nii on quand on parle d'amnistie on pense automatiquement à Khalifa ak Karim Wade. am ñu jàpp ne serait vraiment dommage que après li ñu leen tuumaal li ñu def yëpp ñu fàtte mu bàyyi mu jàll ku ci a leneen ba xam ne jël nañu xaalisu réew mi duñ duñ inquiété wu benn yoon. waaw mais mais non xam nga amnistie moom day fekk ni procédure bi. jeex amul beneen voie. boo xam ne moo moo gën a limité am man du ma juriste boobu ensuite c'est pas ma responsabilité damay jàpp ne amnistie moom day fekk procédure bi yëpp jeex na. Mhm. xam nga àtte boo àttee ba mbir mi jeex. ñu ne kii moo tooñ peuple bi xam na ni lii mooy dëgg loolu jeex na peuple boobu itam moo moo jox ay moyen boppam ne mën naa baal mais Mamadou ñaata yoon nit ton na nga baal ko. au nom de quoi ak faute nu mën a grave yàlla nga xam ne moom mooy mooy suñu borom yenn yi monsieur le dafa dafa rëy occupé Sénégal actualité bi de 138 yàlla mi nga xam ne suñu borom ñu ngi koy def tous les jours mhm. lu nga xam ne kenn mënu koo mënu koo xayma te moom mu mën a baale te mu yore puissance yëpp cinquante nag nit mën a baale en un moment de son histoire dafa bokk ci doxalinu ab réew mhm. donc loolu man jàpp naa ni loolu ñu ko ci bëgg a débat politique la ñuy def adduna yëpp il n'y a pas un seul pays au monde où le mécanisme de la loi d'amnistie n'est pas mis en branle dans le but de réconcilier toutes les forces ça c'est au moins j'estime que ça c'est une très bonne chose ah.